mbokki Sicap maa ngi leen di nuyu di leen andil nuyoo ak félicitation wu encouragement yu président Macky Sall travail d'animation travail de mobilisation, travail de sensibilisation boo xam ni day fësal liggéeyam gën a leeral li nga xam ni mi koy def ku ko bëgg rek nañu ci jàppale moo tax xaadim dinaa ñëwaat yow léegi maa ngi lay nuyu di la féliciter di la encourager di nuyu responsable yi fi teew yëpp mais bu ma ñëwee ci benn quartier fekk leen ñu ñëbbi si tey ci Sénégal nekk vice champion du monde bu roller ñibbi si tey ñu daje fi tey tombeel waral ay gaaf maa ngi lay félicité ci turu président de la République mu fekk ma may ministre des sports waaye coupe du monde moom vice champion champion moom du monde mi fiy doog a ñëw incha allah dinaa ko wax président dinañu fexe bala nga xam ni war na ci yéen maanaam war na ci képp koo xam ni defaral nga réew mi sagal réew mi yëkkati réew mi li président di def ak yow incha allah dinañ ko ko yëgal te dina ko def incha allah yéen la président di bëgg wane un exemple. C'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui progresse. moo tax boo ko joxee Djibril Wade bu ñëpp ràññee ci sport mënuma lu dul kontaan ci di bég ci teewaayam fii ndax Djibril Wade dafa dëkk fii ci ñaari tali man ma dëkk fii boo jéggee rek tali bi looloo tax may nuyu Serigne Oumar Serigne Oumar Mbacke Gaynde Fatma kër way juram adresse la ci rue 10 Serigne Moussa Diané ñu ngi koy nuyu jàppoon naa bu ma jógee fii jaar foofu waaye xat-xat yi tax na duñ fa mën nañ ko mën a def tey waaye incha allah dootul yàgg président Djibril Wade maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu waa mbedd mi yëpp am naa fi benn xarit boo xam ni c'est un footballeur maa moom ñu ànd liggéey lu bari muy Vincent mi ngi dëkk fii maa ngi koy dénk xale yi fi nekk Xaadim li nga wax dëgg la sa way jur bu góor Alaaji Mbay Jaay yàlla na ko yàlla yërëm moo la andi woon ci man boobu maa ngi ministère des finances ngay doog a pare jàng ma gis ci yow yar gis ci yow engagement gis ci yow aussi ay capacité en terme d'organisation et de communication wane nga ko fii tey moo tax chaque fois qu'il s'est agi d'organiser boo ma waxee rek dama leen ne demal parce que xam naa ni am nga ci compétence ma xam ni aussi kuy déggal say waay jur la ndax bi sa waay jur làqoog léegi bariwul looy def te waxoo ma ko boo ma ko waxee it bariwul sax li ñuy toog di ci waxtaan xanaa démb lañ toog waxtaan bi ma déggee lii nga xam ni yaa ngi koy organise ak ampleur bi nga xam ni jëloon na ko ma lay féliciter bu baax ndax kuy jàppale ma Sall man ngay jàppale kuy liggéeyal Macky sàll man ngay liggéeyal moo tax bi ñu toogee démb ma ne la dama bëggoon mouvement ak lépp ñëpp nga boole ko ci biir Benno Bokk Yaakaar nga ne ma nangu nga ko dem ci yokk beneen nag tey ci biir APR laa bëgg dugal ko tu es un engagé mais président Macky Sall dafa doon koo xamante nii la nga xam ni tey mi ngi koy defar réew mi ñu mën ko seede la nga xam ni am na ko yéene ñu xam ko jàppale ko warul am sikki sàkk boo koy jàppale li gën a sacré ci moom tey jii ci wàllu politique Benno Bokk Yaakaar la mais ci biir loolu li ci gën a sacré mooy alliance pour la république moo tax ku sës ci man boo koy jàppale duma la bàyyi fekk dugaluma ci biir alliance pour la république bu boobaa nag dinaa la jàppale man mii jàppale bu mat sëkk parce que ba tey des na moo tax ma woo Karim woo Pape Mayel woo docteur Malick Diop woo Bouna Kanté ma ne la pour le volet bennoo Bokk Yaakaar bàyyi naa koog Malick Diop pour le volet Alliance pour la République bàyyi nañ ko ak Karim Fofana ak Pape Maye dama bëgg nga ànd ak ñoom ñuy say mag tette la jàppale la def ko sans calcul def ko avec engagement def ko avec détermination tu ne perdras pas Alliance pour la République c'est le parti du présent président dañ ci bokk alliance pour la république c'est le parti de l'avenir tu es encore jeune avenir ci la donc Khadim Karim Abdou Karim Pape Mayer seen taxawaay bi neex na ma lool xam naa ni président na ci kontaan lool sama objectif mooy bépp njabootu Macky Sall ñëpp ànd bokk ndey bokk baay werante du ñàkk xëccoo du ñàkk mën nañoo tey mais xëccoo tey amul sens tey le combat bi nga xam ne ci la ñu war a nekk c'est le ci ànd sans calcul sans réserve def ko Rue def ko Mbacké def ko fépp ci Sénégal foo xamante ni am nga fa ay mbokk parce que loolu say way ji liggéey nañ la ko xam naa aussi sa diggante ak waa Kër Sëñ Fallu maa ngi nuyu xam naa seen ci biir Sénégal la xam ni Sëñ Fallu def na bi miin ci taxaw kontaan naa aussi ci li nga valoriser les outils yi président de la République def pour jàppale askan wi moo tax nga dem dugg biir FONGIP dox wax ak ñoom ñëw dugg ci gox bi en dehors de toute contingence politique ñu jàppale ñi ko soxla ñëpp loolu la président bëgg demal DER outil la boo xam ne aussi président moo ko fi teg pour muy financer jigéen ñi ak xale yi. xëyu ndaw yi Pape Malick devait être là pour jàppale xale yi utal leen liggéey incha allah ndakaaru dina ci am wàllam te le 6 bii di ñëw dana am luñ ci fësal ci benn manifestation boo xam ni war nañu def bilan wu xëyu ndaw yi. mais aussi les perspectives xëyu ndaw yi ak la nga xam ni président bëggal na ko xëyu ndaw yi notamment dans la région de Dakar et plus particulièrement fii ci biir département Dakar le 6 bi di kon maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di leen sant di leen gërëm di leen fàttali léegi bindu mi jeex dem leen ci commission yi benn fan a ci des wala ñaari fan muy le 2 le 3 bii parce que ñetti fan yi mujj contentieux ku bëgg jàppale président Macky Sall ku bëgg a nekk biir Benno Bokk Yaakaar ku bëgg nekk biir APR c'est le moment de montrer son utilité et d'avoir sa carte d'électeur góor góorgóorlu ci ñoom sa mbokk yi fi nekk veilleel à ce que ñoom ñëpp niñ fi ñëwee tey ñoom ñëpp am ay carte électeur am na lu ma la wax démb dafa nekk ci ay renouvellement ñuy monter ay comité li fi nekk fii lu mu tuuti tuuti tey li ma ci gis war na mat gàtt gàtt cinquante comités wala deux cent comités de trois cent bëgg naa nga bind leen créer say comité taxaw cër yi affaire yi di bu boobaa duñ ko mën a réclamer en toute légitimité kenn du ci mën dara ku duñ président Macky Sall boo gisee ma teg la ci yoon boobu ndax boo amee rak dañ koy yéene jàmm yéene jàmm mooy nga ne ko dama bëgg da lay def man ba nga ma mën ma gis bi ma sago dama bëgg nga jaar ci tànk yooyu yàlla seede loolu laay wax Karim bés bu nekk loolu laay wax Pape Mayel bés bu nekk ndax yéen ñëpp xaj ngeen ci yéen ñëpp war ngeen mën a am te bu ngeen bokkee ndey bokk bàyyi ku nekk dina am te bu boobaa Sicap Rue 10 fan koyo lay jariñ gis nañu ñu ngeen di sonnee ci askan bi loolu la président bëgg kon dama bëgg ngeen ànd nekk benn demoon la début bi ma ñëwee dama xaw a xat loolu laay wax ndax la ma lay wax ci biir loolu laa lay wax ci biti la ma lay wax ci biir bu ma la ko mënul lay wax ci biti damay préférer noppi ci biir comme ça doo ne wax na ma lii ci biir wax na ma ci biir ana carte bi voilà Fatou Ndiaye carte bi jox ko carte carte baa bi bu jar kon commencé ngeen ut ay kon kontaan naa lii mooy li ma la santoon mooy ñi nga àndal ñëpp boole leen ci biir li nga xam ni man ci laa nekk la ma nekk nag mooy maa ngi biir Benno Bokk la ma nekk mooy maa ngi biir alliance pour la république di bu baax soxna May Baara Fadilu bi fi nekk tey tamit ànd ak ay mbagam di sant bu baax ñi nga xamante ne mooy samay mbokk di sant sama waa kër baay ñu ngi fi toog di sant sama waa kër yaay yàlla na ko fi yàlla yàggal di sant bu baax waa Mbàkke Bawol ñi nga xamante ne euh, dañoo bañoon ne ma lii ngay tàmbali dañu bëgg nga tàmbalee ko Mbàkke sa dëkku maam ma ne leen nag wax dëgg yàlla foofu laa bokk Mbàkke laa bokk Mbàkke mooy sama lépp omo lu dul diggante Mbàkke ak Touba waaye comme yàlla def na ne fii laa lépp laa defee lépp ci àdduna bëgg naa ñu tàmbalee ko fii rek waaye suñ jógee fii Mbàkke ñu jëm donc xam leen ne incha allahu ñu ngi ñëw Mbàkke di sant bu baax samay dëkkandoo di ci jiital délégué de quartier yi di ci jiital imaam yi sax waroon jiital di ci jiital tamit euh, di ci teg sax suñu waajur yu baax yi dëkkoon fii ci koñ bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu tettee ñoom ñoo ñu yar ba ñu am tey tawféex bii ñu am ñu ngi sant bu baax suñu waajur yi fi jógee di leen ñaanal yal na leen yara xare àjjana te bàyyi fi seen njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo fi des ñi ngi sant bu baax tamit ñi nga xamante ne ñooy soxna yi nekk ci gox bi muy Fann Point Amitié muy association yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp ku ci nekk dem nañ seeti leen ci tàmbalee loxol jigéen ñu ngi leen di sant bu baax di sant bu baax lingeer yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di sant waa euh, euh, faj ajo di sant euh, yan association yi bëri nañ je pense que pour bañ a juum y a ne d'une cinquantaine d'associations ci commune bi ñooñu itam dinaa def seen plaidoyer ci kanam ak tamit ay sant yoo xamante ne dinañ ko def jëmale ko ci gouvernement ñi ngi sant tamit bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ak ñi nga xamante ne surtout politiquement ñun fi nga xamante ne foofu lañ jàpp ne foofu lañu bokk muy Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko leen fi teewal ñu ngi ciy jiital suñu mag suñu kilifa Pape Mayel Diop di nuyu bu baax ki nga xamante ne tamit moom mooy docteur Pape Malick Diop. di nuyu bu baax ki nga xamante ne suñu mag Abdou Karim Fofana. ñun aussi li nga xamante ne suñu mag la bokk nañu fii di Sicap Rewis muy Bouna Kanté di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak premier ministre yëpp bokk ci délégation bi mun naa ci lim administrateur général du FONGIP muy Thérèse Faye di ko sant bu baax ci taxawu bi di nuyu bu baax ki nga xamante ni tamit mooy sama papa Diop Sy di nuyu ki nga xamante ne mooy monsieur le maire ah, de la commune de Biscuiterie di monsieur Djibril Wade di nuyu ñi nga xamante tamit ah, mun naa ne ñoo bokk fi ñuy liggéey di ci tàmbalee muy grand Vincent bi di di ki nga xamante ne mooy suñu EG def naa tamit ñëw na Alioune Badara Diop di nuyu kii di Chopard mbay di moom it suñu mag ñuy liggéey ak moom di nuyu aussi monsieur le maire Ali Mané le maire de dama ne dama ne le maire de Paos Koto le président du conseil régional de Nioro di nuyu aussi monsieur le maire de Niakhar di suñu DAGE au niveau de la primature du monsieur Makodou Sène di nuyu ki nga xamante ne suñu yaay la suñu sang la suñu lépp la muy ajaratu di soxna sëñ Xaban Mbàkke Fadilu moom ñu ngi koy sant bu baax baax a baax sant ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk nekk ci parti bi nekk ci ànd ak xale yi parti bi muy waa COJER ku ci mel ni Moustapha Sissoko di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk COJER yëpp di nuyu ñi nga xamante ne vraiment ñëpp ñoom ñoo nekk ci biir parti bi kon suñu limee dañuy juum di beral nuyoo ñi nga xamante ne ñooy sama quartier adoptif mun naa ko wax parce que bëri naa fa ay xarit bëri naa fa ay am di jàmm te monsieur le premier ministre moo ko waral muy Parcelles Assainies Parcelles Assainies nag wax dëgg yàlla def nañ ma seen doom def nañ ma seen rax di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne moom Abbas Ba euh, Imam Jibril euh, Ba di nuyu ñi nga xamante ne ñëpp vraiment ñoo fi nekk ak ñoom gaje ga di nuyu ki nga xam ne sama magu bopp la wax dëgg yàlla muy Babacar Gueye Babacar Gueye sama magu bopp la kooku du ko boole parcelle du ko boole ci man duma ma ko boole primature sama magu bopp la moom ak Jali ba ñoom vraiment samay mag lañ ñu egg sori ci man. am na ñoo xamante ne ñëw nañ te gisuma leen maa ngi ciy jéggalu waaye dinaa gestu xool kii nga xamante ne sama frère la di Wan Sow Mor Huchard euh, vraiment ñëpp ñoo xamante ne daal ñi ngi fi. maa ngi leen di sant di leen nuyu di nuyu ñi nga xamante ne vraiment ñëpp teew dañu fi tey ñu ngi leen di sant bu baax sant ma samay xarit ma ñu ma fekk di sant ñi nga xamante ne tamit dama bokk ak ci Mbàkke sama tonton Isma Dioum di nuyu sama sama sama sama sama samay mag ñi nga xamante ne ñoom laa àndal tey ñu nekk fii ñi ma àndal baal nañ ma ne mën naa leen bañ a tudd donc ma tudd rek ñi nga xam ne mënta ñàkk tamit sama famille yaay gi nga xamante ne moom mooy suñu kilifa fi ñu toll nii sama suñu suñu papa la suñu tonton la muy tonton Baara Ndiaye bu baax moom di ko sant di nuyu ki nga xamante ne tamit dëgg yàlla mooy suñu maam Bira bi nga xamante ne bu ñu jógee ba Wakaam ñëw fi ak suñu mag Pape sumay tante yi nga xamante ne ñu ngi fi bàyyiwuma kenn wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nuyu naa leen dafa am loo xamante ne tey moom moo ñu fi dajale muy grande rentrée politique bu ñu wax ñu woote ne dañu bëgg woo ñëpp suñ ne dañuy def rentrée politique dafa na ñun gone yi ñu jóg jóg nag au niveau local mooy dañu yëpp si nga xamante ne moom la ñu xalaat am benn engagement citoyen boo xamante ne ñun ñëpp nekk si ñun waruñoo seetaan ndax dafa dama am lu ma wax sànq nee naa am na loo xamante ne suñ ko seetaanee ñun ñëpp ñoo ñaar te war a am donc euh, moo tax ma woote loolu li nga xamante ne am na des mooy ñun fii nga xamante fii dëkk yàgg nañu fi am yéene di ko doxal di ko doxal si li ñu yàlla may ci kàttan yàlla def

loolu tax na fu mu gëstoo dinañu gis ñu bëgg loolu leer lii nga xamante ne dañ ko woote ñu bëgg tamit ñëpp xam ko fépp fu ñu dem taxaw waxtaan ak ñi ñuy seeti monsieur le premier ministre permettez-moi de remercier les populations de Fann Point Amitié et de Dakar parce que les quartiers environ yi fi nekk yëpp dem nañ fi waxtaan ak ñoom si suñu projet waxtaan ak ñoom si li ñu xalaat li ñu xalaat mooy que ne ñun ñii ndaw ñi dañoo war a jóg jàppalante ñun ñii ndaw ñi dañoo war a jóg xalaat ne lii doxal dëkk bi ëllëg si suñuy loxo la ne bu ñu kenn jaaxal bu ñu kenn jaxase bu ñu kenn réeral dafa am lu fi am damaa ñëw seeti femmes yi fi nekk ma ne leen awma xaalis seeti ndaw yi ne leen yoruma xaalis waaye nguur gi dafay joxe ay jumtukaay ay programme yoo xamante ne pour yéen la yéen yéen a ko moom yéen jigéen ñi yéen yéen a ko moom yéen góor ñi suñ leen gëmloowee leneen dañ leen di nax donc li war mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn position yi ñoo nekk ci yenn station yi dañoo war a di dellu ci waat suñu base dañoo war a dellu ci waat di gëstu suñu askan dañoo war a dellu ci di xool li ngeen soxla ñu leen koy defal loolu moo tax ma dem seeti ku mel ni soxna Thérèse fay bu Fongib mu ne man sa xalaat boobu ànd naa ci te dinaa la ci gunge mu ne xoolal association yi nekk sa gox dinaa leen jox enveloppe bu 30 millions mu jël enveloppe bu 30 millions dugal ko ci commune bi daal ma duma ma yam foofu donc loolu ma koy leeral ñi nga xamante ne egseegul ci ñoom mooy que ne FONGIP taxawoon na pour association yi nekk ci commune bii nii yëpp xëy na dañ koo tàmbale ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a jege pour le moment mais fii ci to fii ñi ci topp ñëpp dinañ jot seen ay financement incha allah rabbi ndaw ñi tamit wax dëgg yàlla ku ci nekk am na si loo bëgg yëngu loolu itam elle a décidé de nous accompagner on a choisi trente jeunes yoo xamante ne dinañ leen accompagner à partir de la semaine prochaine jeunes yooyu loolu wax dëgg yàlla suñ demee ba di ci gërëm duñ ci gërëm kenn ku dul le président de la république Macky ndax euh, li nga xamante ni moom mooy programme yooyu comme li may wax su ngeen ko jëriñëwul kan moo koy jëriñëw su ngeen ko jëlul kan moo koy jël yéen yéen ko moom donc jël leen ko ñun nag li ñu war si biir li ñu woote muy ñëpp dañu bëgg ñëpp retrouver wu autour de l'essentiel ñu bañ kenn ku ñu jaxase ñu bañ kenn ku ñu détourné l'heure ne pas la division l'heure n'est pas à ay xeex ak xuloo ak xiiroog ñaayo lu ne fàng kenn du ko jeex defe naa loolu la ñuy wax donc focus sur l'essentiel focus sur sunu avenir ñun ndaw ñi te bañ kenn ku ñu divertir aujourd'hui li may ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mouvance bi li jot mooy ñu wane li nga xamante ni moom la fi président def teg ko fi muy ay jumtukaay pour population yi waaye ñu bañ di tontu di attardé wu ci ay détails yoo xamante ni du ñu jëmale fenn donc euh, loolu bokk na ci kàddu yi nga xamante ne amoon na solo loolu ba bëggoon ko joxe di wax ne nag ñun suñu liggéey tey lay tàmbali tey lay tàmbali suba lay tàmbali dañoo am loo xamante ne ñi ngi ko tàmbalee dox boobu ba léegi nit ji ubbil ju seen buntu kër di adhéré suñu projet mën naa ne premier ministre démb la ñuy dog di wax ci lii may def tey tàggu naa ko nag nee naa ko damaa bëgg engage wu politiquement ndax dafa jot mu ne ma demal bàyyi naa la loolu nag wóolu moo tax mu def ko waaye démb la ñuy dog di échanger ci li nga xamante ne mooy activité bi ñuy def tey mu ne ma ah li ngay def nu muy demee ma leeral ko déroulé bi yëpp ni ko ñu nee dem nag am na loo xam ne maa ngi la koy ñaan bu ko sañoon sa liggéey bi ngay def nii nga ñëw ñu jël ko jébbal ko président de la république nga ñëw sóobu ci lii mu yor muy parti bi muy euh, APR muy Benno Bokk Yaakaar ma bëgg ko wax dara monsieur le ministre da nga ne woon je ne connais pas la loyauté à géométrie variable on est loyal on est loyal ou on ne l'est pas je pense que yaa ko waxoon leneen lii monsieur le premier ministre da nga ne woon président Macky Sall su ne ñuul na nga ne su ne weex na nga ne su ne xonq na nga ne ñun monsieur le premier ministre soo ne weex na ñu ne tàll soo ne xonq na leneen li ngeen may ma nag damaa woote nag te tey laay doog a woote comme tey laay doog a woote nag dañ may may rek dañ may may rek Khadim Mbaye damaa bëgg nga ñëw ndax samay nit lañu samay xarit lañu samay wéttal lañu pour ma def dara te bu ma ci boole damaa bëgg. dama bëgg Seydou Sy nga ñëw nga bokk Touba Modou Mbaye nga ñëw premier ministre moo ñu boole yaa dëkk Parcelles Michel dama bëgg nga ñëw Michel dama bëgg nga ñëw euh, premier ministre maa ngi lay maa ngi lay wax ne ñu ngi sant bu baax suñu yaay ji nga xamante ne mooy soxna Anta Niang Touré dëkk fii ci Boye maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax moom mag la wax dëgg yàlla elle a tenu à se déplacer ñëw fekk lii donc euh, ñii nga xamante ne woo naa leen bëgg naa ñu sànni ci kàddu ñu sànni tuuti kàddu nag ñi di kàddu la ñëw moom suñu xarit xaadim Dia Khadim Dia di suñu rakk li mu wax dëgg la ndaxte li ñu boole du politique dama toog ak waajuram Alaaji Mbay Dia mu nettali ma ne ma yow sa nijaay Khar Ndofène Diouf ancien ministre chargé de relation avec les institutions ak Alaaji Baara Mbàkke Falilu ma mosuñu tàqalikoo ca Kaolack li koy firnde it mooy magam ju baax ji di maxtar Dia ne ci ginnaaw nga xam ne dafa yàgg jàppale président nekk président conseil départemental bu mbir Mbirkilaan ma koy nuyu Makhtar ñu yàgg ci jàppale président Macky Sall muy liggéey bu am solo mu ñëw nag fekk si ñu ci liggéey bu am solo bii ndaxte jàppale président Macky Sall jërëjëf ñu déglu ñu déglu tuuti rek waxtu wi dafa gàtt jàppale président Macky Sall mooy jàppale senegal ndaxte jamono jii ñu toll xaadim sa wax am na solo dajale ñëpp ndax li ñëpp bokk ndaxte réew mi nga xam ne am na ñoo xam ne bu ñu xëyee liñ ciy xalaat mooy taal liñ ciy xalaat mooy toj liñ ciy xalaat mooy saaga kilifa diine yi liñ ciy xalaat mooy saaga magistrat yi xeex ak policiers yi xeex ak gendarmerie xaadim ndaw ñi jar nañoo woo jar nañoo mobiliser jar nañoo yee jar nañoo ubbi seen bët ngir ñu ràññee lii njëriñu Sénégal xaadim nag liggéey boobu boo ci ñëwee ànd ak suñu mag suñu kilifa monsieur le premier ministre Amadou Ba dañ la ci yaatal ndaxte war wi waar bi dafa day dafa yaatu bi nga egsee gis nañ ñi nga àndal gis nañ sa mbokk yi jóge Mbàkke gis nañ ñi jóge fii ci Sicap Rue gis nañ suñu mbokk yi jóge Touba may nuyu suñu kilifa yii fi fekk defe naa ne bâche boo xam ne ñetti gala su fi daje ñëpp doon sëtu sëñ lu bariwul ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax xaadim na sa xel dal Benno Bokk Yaakaar li ko samp yaatu la ak ubbeeku président Macky Sall dañu ànd ak moom 2010 2011 2012 di wër Sénégal fu mu dem rek ku bokk ci ñëw bees mu ubbil la jàppale la ba nga mën a liggéey ba yaatu fi xamal ne Benno Bokk Yaakaar Bouna Kanté dina la yaatal Pape Mayel Diop dina la yaatal docteur Malick Diop dina la yaatal man nag duma la yaatal dama lay teg sama ginnaaw ànd ak yow ñu liggéeyal président Macky Sall ndaxte mbooloo mii fi daje mbooloo mu ñu am yaakaar la te képp ku leen mën a mobilise danañ taxaw ngir mën a jàppale président ni ko premier ministre bëggee te di ci soññee donc loolu mooy kàddu yi di la ñaanal dalal jàmm di la wax ne foo ñu soxla ak loo soxla ci ñun moo xam ci Ndakaaru la moo xam ci Mbàkke la moo xam ci ndar la fekk mi ngi jëm ci président Macky Sall ñu ngi sa wet jërëjëf allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf